président jóg donc lu doon loo xam ne lu ndaw la tubaab yaa nga ne sonn bay bëgg a dee donc leen tuba na tubaab ya moom su su su baree ci sunu réew yi euh, maara day taal donc looloo tax ñu ne yéen ñi nga xam ne yéen lañ yaakaar bërëb bi bërëbu ñaanu kaay la wax dëgg yàlla nit du du du fi yaakaar du fi tase piir gii moom yaakaar du fi tase looloo tax ñu ñëw ci jumaa ji wax tamit ngeen ñi def ci ay ñaam ngeen def ci ay ñaan wax imaam mu def ci ay ñaan pour que. nit ku soo ko nuyoo mën na la koo waal su fekkee feebar mën même su dul feebar bi sax su dee beneen feebar sax nit ki mën na la koo wàll ci nuyoo waxtuma laa feebar bi nga xam ni euh, nee nañ dafa gaaw lool ci wàllaate waaw donc daal ginnaaw euh, suñ jógee fii dañuy dem jumaa ja tamit parce que nit ñi dañ fay ñëw di julli ji ku ñëw di julli si raxasu sooy génnee di dem raxasu waaw raxasu daal mën na la ci muccal voilà tey moytu tamit di xam nga raxasu woo pare di laal sa kanam gi di laal say say bët ak ñoom seen kon lu ñëw rek nañ lu rafet waaye daal di ko gëmee yàlla salaamaaleykum waaw bi joxeel dox sëñ bi ndooy yàkkamti na nag wante mën su ko bañ a gërëm ah, ndax nit bu defee taraanga te ku la ki la ki la limaale moo la ci boole mm-hmm. parce que lii tu tuutiwul Euh, olof dafay waral di wax ni domp sax ci sot la bokk euh, bu xew-xew amee nga nekk ca ndakaar Dakar nekk sa liggéey sa xel nekkul ci lu dul naa wut lu ma yóbbu ci njaboot ga ca piir waaw ah, wax dëgg yàlla ji koy njaboot waaw ñu ngi ñaan yàlla mu yombalal la li nga bëgg ci lu baax ndax gis nañ lu baax rek ngay dox te tamit képp kuy wut lu baax yàlla moo la gën a baax rawatina nag nga tàmbalee ci kër ci këru diine yi parce que ñun kii mooy suma sag hmm. tey jii pire bu ñu dee wax kii sële nañ sago ak nag ñu baax ñu fi nekk comme lii tam yàlla na yàlla na ko yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na nekk itam ak ubbiku waaw doomi doomi doomi pire yi nga xamante ni bii mën nañu lépp wala doomi gox bu ne ni ko waxee ña fa mën yii parce que tam barab boo xamante ni bii fa nga ganee àdduna ni fa uwee lu ñu wax ko te li ngay ñaan yàlla yàlla na yeex bis boo génnee àdduna buñ la dencul ca suuf setam falañ lay ñaane la bis boobu dafa mat a sédd des koy bàyyi ak yàlla alhamdulilah koo ni naa la yàlla mu mer nag la mu defal baax xoolal jëf ji rek amul man mi ngay wax naan sax bëgguñu suñu xalifa bi tay dama tiit parce que dama la ko dama tiit yàlla teel waaye boo déggee ne maa ngi ca balal teel doom ñu ah loolu bi da bëgg a fàttewaale moom itam ndax ginnaaw dafa nekk soldaaru dëkk bi itam mu gën a man gën a wéen gën a mën a kii loolu daal bu ko ci fàttewaale ndax moom doxam bi daal am na solo. déedéet moom. waaw moom. des koy bàyyi ak yàlla. alhamdulilah koo di bàyyi naa la yàlla mu mer nag. la mu defal baax jërëjëf. rek. waaw waaw amul man mi ngay wax naan sax bëgguñu suñu xalifa bi.